برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله والصلاة والسلام على النبي رحمة مفتاح رحمه mu'ti rahmah wa muli na'mah wa ala ali wa ashabi tayyibin tahirin wa tabi'ihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin mbok julli gora jigen maga ndaw kep ko xamne ya ngi setan ci faydatijania.com wala ngay ñu ci deglu ñu ngi lay wacce sa wacc way di len siaré di len sant di len gëreum ci bëgg gi ngeen bëgg yalla yalla mu len tagatal seen roh ba ngeen jublu ci mom, jublu ngeen ci yalla ci melokanam jublu ngeen ci yalla ci turam jublu ci yalla fas yéene ñu ëllëg badi esid bi badin dañuy commencer نينا يتاي شيخ ابراهيم ابن على جاب الله تي في جسمه وفي روحه وفي نفسه وفي عقله وفي قوته التبعية وقوته الكلية وقوته النورانية wa amalihi alxeyr lil islaam wa lil muslimina kaafa ñu ngi nuyu Cheikh Ibrahim ci jëmmam du ko nuyu ci ruuxam du ko nuyu ci nafsam di ko nuyu ci xelam di ko nuyu ci xolam di ko nuyu ci forsam naturellement ak forsam absolument kulliyatan ak képp ko aju ci moom lum kowe kowe kowe ñu ngi koy nuyu lum kowe kowe mooy ku bokk ci moom damman wa ruuxan lum xaw a xaw kii mooy koo xam ne xam na lu la takkaleeg moom ci deret walla ci ruux wala ci xel wala ci mbugeel ñu ngi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp nag tawfeex ku bokk ci moom ak ku bokk ci mboolem kër diine yi xalifa seen yëpp ñu ngi leen siyaare di leen nuyu di leen wàccee seen wàccuwaay nag di leen ñaanal tawfiix seen liggéey bu métti seen xen bu diis bi ñu yore tey suñu waxtaan ñu ngi woon ci ismullahi latif def nañ ci ay émission façon ko yéen a topp ci primi primi xurt euh, bi lim ci wax ak keneen lim ci wax ki ci wax ñaar fukk ñaar ñu toppoon ko ba ci fukk ba juróom-ñett tey ñu bëgg a taxaw ba yeneen émission ñu mottali la ca des ndax tey xam naa mën naa am du gudd tey ñu ngi lay wax ne tur yàlla boo gis dafa am gis mu comme doomu aadama donte yàlla kenn du mel lay si ka misli shay tur yàlla bu ne dafa am jismu mooy jëmm suura ba melokaan ba kee dafa gudd kee dafa gàtt tur yàlla yi tamit dafa am jismu am suura jismu tur yàlla bi mooy suura ba ni ma amee jismu noon la amee ruux tur yàlla woo gis am na ruux ni ma xamee ruux ni la amee nafs mooy euh, bakkan ba ak noo ko mën a firi ni mu xamee nafs ni la xamee qalb mooy xol <laughs> bul jaaxle ndax ki may wax mel ni kenn te kenn du mel ni moom ba mukk mu yàlla waaye turu yàlla wu ne ni mu amee xol ni la amee xel ni mu amee xel ni la amee kulliya attabiiya noonu la amee kulliya al noonu la amee quwa tabiiya noonu la amee quwa al kulliya ma jëlal misaal bu la neexee nga jël ko ci latif bu la neexee nga jël ko ci baa ndax baa tur la ci tur yàlla moo tax Cheikh Ibrahima naan ko yaa alifu salli wa sallim halal baa wa nuxtatihi wa saklatihi tudd na foofu yu bëri صلاة تؤلف لنا بها يا الله يا واحد القلوب ما وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقطة والسكلة يا سر الجلال والإكرام سبحان الله كون جسمه كون تر يالا بو جس رك xam ne jismu nañ wax ne te jismu mooy sóora ba nañ wax ne ismulaay latif ñaar la de kon nag rooxa ñaar yoy mom ngay multiplier muy 4 té 4 ya nga amagum ñaar kon nak man nga wax né bon nafs bobu bu la nga multiplier hon 4 euh ñaar mom ngay multiplier ñatt ndax ñett ñëwagum na gis mu ñëw na euh roh ñëw na nafsu ñëw na kon la nga multiplier hon ba tey it euh, trois moom ngay multiplier quatre muy mui ma mui xol ba muy nga bole dee bi nga amoon ak quatre ba ak douze ba ak seize ba muy trente quatre trente quatre nga del siaat ca la nga mujjoon a xisaab muy quatre <laughs> nga multiplier ko ca mu jox la cent 496 kooku mooy xuwa tabiiye ci turu yàlla boo paree nag yaay seen noo koy multiplier ci latif ndax 129 la jismu ba xaqlu ba roho ba xalbu ba bi mu nekkee moom ngay multiplier fukki yoon <laughs> muy xuwa al kulliya fële lépp daje xuwa kulliyatu yàlla nag ci tur mu mën doon képp ku liggéey ba yegg fa dama wax ne ku yàlla dimbale ba nga liggéey ba yegg ci quwa kulliya li ismin min asmaillahi l husna a tisaa wa tiin rubbama sa yakunu laka al malaka li hada al ism waxuma quddaam malaka ba ngay am waxuma aawaan ñi lay dimbale déedéet kon nag tey dama la ciy jëlal ci chiffre yi ma la wax rek 4 bu jëlal 4 nga minti ko ci latif mu jox la 516 euh, maanaam juróomi téeméer ak fukk ak juróom-benn boo demoon ci sóoratu Yuusuf da nga fa fekk baat bu ñuy wax sayaara sayaara mooy oto xam naa tey mag ñi buñ daan liggéey buñ soxlaan waruwaay latif ñu ngi koy liggéey 516 waruwaay na dafa rib façon mbaam waruwaay la fas waruwaay la gëlëm waruwaay la oto waruwaay la yow daan yaa xam sa quwa tabiiya wala sa quwa kulliya fan la toll ci tur wi ci tur wi bu boobaa nag su fekkee yàlla dimbale nga ne la ba nga liggéey ismulaay latif 516 ñaan ci waruwaay bul fi bàyyi ko nag naan waa dafay Euh, woote ma ne loolu laa fi fekk mag ñi di doxal xanaa kay da nga koo xamoon wala nga ñàkk koo xam te xanaa waruwaay nag dagan na nag ndax <clears throat> dafay dimbal doomu aadama waruwaay dafay dimbale doom aadama moo tax yàlla tudd na ko ci xaj tudd na ko fu ne yàlla doxaloon na nit ñi nee na qul siiroo fil ard fanduroo maaza kaan te dox boobu nag am na ci boo xam ne ni mënu ko def ak tànk xam naa nag oto boobu soo ko bëggoon a dugal ci buxaaba e, dana jafe nga jaarale ko ci turu Ismulaay Latif waaye bu ko boo ko jaaralee ci nooraani ya rek dana yomb yàlla ndax sayaaratun siin gu wow la muy ñetti téeméer yaaga di fukk alif ba di benn xëga raaga di ñaari téeméer xëga di juróom booleen boole muy cinq cent loolu lañ boo may tey mbokki jullit yi e waruwaay nag bokk na ca dafa yaatu de waruwaay waaw wa ma min daabatin nag fil ard illa ala llahi risquha te loolu yëpp ci waruwaay la waruwaay eh, daan bugguñ ci sara sara yi gudd ndax yow mi may déglu yaa ma ëpp xel man naam yaa ma gën a leer xel man naam yaa ma gën a dox man naam li la yàlla jox joxun ma ko kon nag bu ma la waxee waruwaay na mag ñi nii lañ ci daan te maruwaay ah waruwaay nag ku ko wax rek wax wéttaluwaay comme ñoom dañ daan soxlay xar soxlay nag soxlay boy lépp lu ñeenti tànk rek dañ ko daan ñaanee ci ismullahi latif ak yeneen tur yi nga xam ne xam nañ ci yeneen waaye yoo xam ne yii eh, moom du ci latif lañ ne moo tax tey ñuy wax ci latif ñu ngi ziyaare ñëpp dinañ ñëpp di ñaanal yàlla tawfiix di ñaanal xale yi fayda tijaani point com yàlla gën leen a taxaw gën leen a dimbale di delloo pee ba seen jukkal xalifa cheikh lislam alaaji ibrahima ñas cheikh ahmed tijaani ibrahim ñas te jikko ju rafet ja te muñ ga te yaatu ga yal na yàlla guddal fanam ak képp ku topp ci koom ak mboolem jowatu cheikh ibrahim góor a génn mag a ndaw di nuyu suñ kalifa fii nag ci Dakar موي محمد الامين ابراهيم وكيل دعل للشيخ الاسلام الله جي ابراهيم نياس نيغي نوي نيب نيغي نويو بروتوكول بيبا شيخ ماهي دي سين خريط دي سين شوبي دي سين سيرين دي نويو الامام الاكبر شيخ احمد تجاني سين شوبي سين خريط الامام محمد جملو والسلام عليكم ورحمه الله Thank you.